donc euh, euh, actualité yu Sow euh, donc nga wax ci ay point yu bari sànq wax nga d'abord lu jëm ci wàllu foncier bu Sénégal. waaw ci ci ci foncier bi. Mhm. xam nga maa ngi ko doon wax sànq. yu bari xew na fi. parce que depuis la semaine dernière. bi euh, le président Bassirou Diomaye Faye demee euh, justement ca euh, Thiès def fa benn visite comme ça en catimini eh bien c' pour bett certainement ce qui était une très bonne chose bett dem xamal boppam li nga xam ne moom la ñuy saax-saaxee suufu réew mi ci yenn pàcc pàcc réew mi maanaam mu choisir dem Thiès pratiquement sans doute parce que foofu le scandale bi gën a exacerbé donc du coup bi mu fa demee moom ci boppam Euh, da ngay gis ni euh, président bi dafa dafa dafa choqué par rapport ak li xew foofu. maanaam ay euh, comment dire bukki xawma lan bi bukki bi njuux bi sàmba nga fa nga fa doon gis. ay sénégalais yoo xam ne euh, ay kilifa yoo xam ne ñu ngi ci réew mi ou ay homme politique lañu wala ay euh, homme d'affaires lañu wala wala ay opérateur économique lañu wala ay homme d'influence lañu ñu séddoo euh, suuf bi nga xam ne moom moo dese ci waa Thiès sa que ni Thiès mi ngi gën di yokku te population yi dañuy gën di màgg ay ay économie bi war a gën di développer foofu nit ñu di gën a toxu vous savez bien que entre Thiès ak Dakar. Euh, am na benn béréb bu mag boo xam ne moo fa nekk dafay euh, porte d'emploi di influence influence ci l'économie du pays mooy euh, l'aéroport international Blaise Diagne donc sa fait que effectivement Thiès soreetul Dakar dakaar soreetul Thiès ndax li nga xam ne moo nekk suñu diggante avec l'autoroute à sa ça va ki mun nga dëkk Thiès ñëw di liggéey Ndakaaru wala nga dëkk Ndakaaru dem di liggéey Thiès ci diggante bi aéroport baa nga fa mun nga dem d'un côté de l'autre et ça fait effectivement ñi nga xam ne ay dëmmu suuf lañu eh ben ils ont choisi euh, de de de teel a mbir yi parce que tout simplement il pensent que ni euh, il faut que ñu teel ko téye ndax après ñu mën ko contrôler yokk yokk ko jaay ko euh, doomu sénégalais yi nga xam ne dañuy dañuy dañuy taxalee Euh, ba nga xam ne euh, dénga nga maam ñi nga ñu ci bari dans leur majorité bu boobaa du ñu mën a euh, am ci suuf yi dañuy kon ne nekk di lo di di di lekk ci ay loyaas nekk ay ay ay ay baadoo la ñu kon ne di leen di leen di leen di leen di leen esclavagiser parce que tout simplement duñ ko mën a jënd alors que boo sàgganee seen i maam sax foofu lañ juddoo c'est ce qui s'est passé à Dakar dans certains endroits booy dem xool côté géjawaay bi booy dem xool côté côté côté la corniche hmm, partout la VDN ñoom rek ñoo koy séddoo ci seen biir Euh, ab au départ c' était ak le gouvernement de Abdou Diouf boo demee Sacré Cœur euh, ñoom ñëpp ñoo ko séddoo waa waa waa waa parti socialiste yi ñi dañ daan maye Feu Tanor Dieng yal na ko yàlla yërëm da daan maye ci terrain yi nu mu ko neexee. mais dafa gën a garaaw ci jamono. léegi dafa gën a garaaw donc beneen. am na sax kenn sentir ko woon comme nii. mais mais non day xam nga muy gën a garaaw parce que nit ñi dañuy gën di bari Fatou dañuy gën di bari donc dóor bi di gën di bari parce que ay bu dee ay fukki nit ñoo doon dóor alors le Sénégal euh, euh, cinq millions la amoon eh léegi nii bu dee bu dee bu euh, bu dee Sénégal on à un peu plus dix-huit millions d'habitants presque dix-neuf millions forcément ñii di dóor day gën di bari que que avant donc nit ñi dëkk bi te ci diggante bi kenn régulé wu fi dara ku si nekk da ngay ñëw nga ne lii mooy sama programme waaye dañ la naan ak li nga li gi Birane doon wax ko ko def mais duñ transport duñ ko mës a def ci leneen ça va être exactement la même chose le président il était extrêmement alerté ahuri par justement ces injustices là bi nga xam ne moom la gis ca biir Thiès ay nit ñoo xam ne leen jox ay 40 hectares xam ngeen luy 40 hectares. 40 000 400 000 mètres carrés. 400 000 mètres parce que benn hectare mooy 10 000 mètres carrés. vous vous rendez compte <coughs> benn nit kese ñu jox ko ci réew. ñaata parcelle euh, au moins au moins ay 400 parcelles parce que parcelle bu nekk bu dee parcelle bu nekk 150 mètres carrés la on fait le compte tout de suite ma c'est même pas la peine c'est hallucinant ci benn nit mu téye ko ñu defal ko ci mu góorgóorlu ba mu parce que temps yële ñu ngi doon nit ñaa ngi comme ak nguur gu bees gi am na ñoo xam ne ñi ngi doon jéem a taf tafe pour ñu seen délibération yi ñu defal leen ko ay titre foncier comme ça bu ñu contrôler mbir mi comme ce qui s'est passé à ak euh, Babacar Ngom tey li mu yoon Ndengler daf ko bëgg a daf si bëgg def ay tool mais bu ko neexee ëllëg moom bu fekkee ne réussir ko yàlla na gudd fan bis jot nekkatu fi ay doomam su leen neexee ñu def euh, ce que je peux euh, un un détournement d'objectif maanaam pour tool la woon waaye ñun tey comme ñu ñooy héritiers yi ñun xamuñu tool dañ koy daggati jaay ko nu ñu neex te buñ ko daggatee buñ koy jaay ñun ñooy def prix bi ñu neex ñu ñu jaayee ko waa Ndingler ñi nga xam ne xëy na góor googu amoon droit am ci suuf ca Ndingler te mu jóge fi ay sëtam ñoom dañuy dem obligé bu ñu amul xaalis Babacar Ngom wala ay sëtu Babacar du duñ leen jaay Mhm. et c'est ça qui fait mal dans ce pays là moo tax boo dégg tey ñu la ay ñoom Idrissa Seck ay ñoom Youssou Ndour ay mais des gens dans ce pays là ay ñoom Birame Souley mais ces gens là ay maire ñetti ñetti arrondissement Thiès yëpp ñoom ñëpp ku si nekk yaa ngi ak say mais ay 40 mais man bu ma déggee loolu mais sëñ bi man il faut mu xuloo. ñoom sa dëkk nañ fa mais am na ñoo xam ne dëkkuñ fa parce que li ma moo bari. ci réew mi parce la te gis naa ni je dëgg la yàlla rek tax ma yow. dëgg la man fii yàlla rek fi nekk. dëgg la parce man sama yoon nekku ci. kon tew ma si ñoom. dëgg la mais boo gisee kanam gi. samay liir da sànni waa ji waa ji xol bi jeex na. parce que nee na nee na nee li li li xel mënu koo nangu. te xol ci boppam munu koo nangu. donc ces gens là dañu décider ñi dañu décider ni dañuy nangu yooyu yëpp ñoom xaw ma lan ay Idrissa Seck Idrissa Seck yow la ngay doyee ay 40 hectares ak ay 20 yéen lan ngeen koy doyee yéen yéen man man man man man man xaw ma lan lan ngeen quoi. mais di yéen da ngeen di dee te dañ leen di suul te ay daggatu parcelle lañ leen di suulee te yéen yéen yéen yaa leen tooñ doomu réew mi yéen yaa leen tax loyer cher parce que yii nii moo tax loyer bi cher parce que bu ñëpp amoon seen propriété bopp Fatou Diouf ñu dimbali leen 500000 francs ñu jox la benn terrain bàyyi la ngay taqali di ko tabax tabax enseignant bi bu retraité dina bàyyi dina bàyyi kër pour ay doomam c'est dégueulasse après après ñu ne la waaw déet waay waaw léegi yow da ngay gis loolu ñu ne la yow yow lan moo tax ngay mer mais man du pour man parce que man sama yoon nekku ci man awma problème yooyu waaye dama gis ay doomu aadama yoo xam ne dañu juddu mais du yàlla moo leen ko teg nit ñi ñoo leen teg loolu nit ñi ñoo leen ñoo leen sànq te seeni doomu réew la parce que tout simplement ñoom finalement ils se sont képp ku bëgg nekk milliardaire ci suuf ngay nekk impôt domaine ñaata suuf la ñu am ci réew mi impôt domaine seen seeni bi dañuy jóg ñu ne leen ñu ne ñoom képp ku dagg suuf ñoom dañ ci am benn parti par force mais fan lañ ko teg. Ah, lotissement administratif mais mais mais parce que tout simplement parce que tout simplement mais am na ay suuf yoo xam ne ak ay kër yu kër kër ci réew mi Sénégal est-ce xam ngeen loolu. Mhm. yoo xam ne ay sénégalais. sénégalais ñoo ko moom état du Sénégal moo ko moom ay nit ñëw dëkk ci parce que fonctionnaire la ñu woon ñu mhm. affecté leen fa ñoom ñu ne ñoom du ñu jóge ci kër googu dañ koy jënd alors que ñoom bi ñuy ñëw di fa dëkk dafa am bu dee directeur la woon. dafa am benn benn directeur bu fa nekkoon ñu remplacer ko parce que directeur bu moom daf ko remplacer moo tax mu jóge ci kër gi ñoom ñu ne duñ fa toog duñ fa jóge ñu fexe def ay ay ay ay maguy ba téye kër googu ba keneen dootu ko dootu si dëkkati alors que ñoom dañ fa jaaroon kese parce que poste bi ñu occupé woon moo taxoon ñu am kër gi réew yu af yooyu moo fi metti ana lu tax sendika impôts et domaines ne man syndicat ñoom ñoo ko voté ci seen biir ñun comme ci ñun si suuf si la ñuy liggéey te ñun ñoo ko yor bépp suuf bu ñu fi dàgg ci Sénégal ak ku ko mënti moom ñu lañ ci am wàll. dañ am quota quota. mais mais ngeen defe ni ngeen defe ni loolu loolu loolu mais après ngeen ne bu bu ngeen ne léegi loolu yéen yéen noppi leen amu leen droit mer amu leen droit wax amu leen droit yuuxu yéen daal téye leen seen làmmiñ ngeen doog croiser bras ngeen jàpp seen ñàmbur ñun lu leen neex la ñuy parce que ñun ñooy impôt et domaine pendant ce temps là le góorgóorlu sénégalais l' enseignant sénégalais vous savez que les enseignants là mais genn amuñu kër. et je suis gentil quand je dis genn wàll gi donc quand j'entends ça wala ma leen di gis ñu naan la sama doom est-ce que mën naa ñëw jàngal sa doom wala def ay cours particulier pour pour pour yokk ci seen retraite amuñu kër te loyer bi euh, yokk na te loyer bi ñu fay seen salaire seen retraite mun leen ko jox parce que ils n'ont rien gardé parce que jotuñu mën a tabax kër kooku su ma ko gisee man wax dëgg yàlla mënuma ko gis taxaw ci télé di def semblant di reetaan di def l'hypocrite sama xol bi dafay jeex te dinaa ko wax tant que maa ngi am possibilité toog wal fa dëggal lu wax ah, boo demee si c'est dégueulasse enseignant privé laïque yi mhm. fala wàlla gën a aaye mhm. enseignant privé laïque ngay gis ku ñuy fay ay heure deux mille cinq cent heure deux mille cinq cent mhm. faatu wala heure deux mille kooku lan la mën a lan la mën a am te li gënoon garaaw temps Covid bi gis naa ay jàngalekat yu nekkoon ci privé laïque yoo xam ne dañ leen expulsé dañ leen dàq pour lan ñàkk fañ a mënuñu après benn moment dañ ne woon ku mënul fay luyaas mais bu ñu demee ba ci kii ak kër yi borom kër yi bras de fer la woon. kon hmm. pour dire que ce foncier là dafa dafa dafa dafa exploser Sénégal parce que man mënuma comprendre yow politiciens yooyu ngay yooxu gëm nga réew bi gëm nga réew bi yow kese nga bëgg a aakimoo trente parcelles. Hmm. mais damay naan loolu yow sax est-ce que dina rees ci sa biir. Hmm. parce que yéen day nuróol. Bakar ak Fokole. parce que mënuma comprendre yow à côté kenn mënu am sax 10 sur 15 10 sur quinze sax di ngay gis kenn kuy yeewu 4 heures du matin ngay maire yuy jaay jën 4 heures du matin nga gis leen ci banlieue bi avec insécurité ñu yenu ay paan di daw pour jéem a fayal seen doom ak école ñooñu pour ñu am sax 10 sur 15 problème la yow kese kese kese yow kese politiciens yi nga ne gëm nga réew mi nga bëgg jël trente personnes trente parcelles que nekk tamit impôt domaine lotissement bu am nga ne ci nga ne ko cundul mais nag yërmande leen am leen yërmande ci ñeneen am nga am nga boo amee benn ñaar bàyyi ñeneen ñi ñu am ñeneen ñi am mais yow nga bëgg aakimoo lépp lu ñëw rek nga ne ko durul du jël moo tax moo tax moo ma am lu ma la wax tamit ci foncé bi mhm. te ni kees rek moo feeñ mbuurkaat gi président de la république moo feeñ man xam naa benn village boo xam ni 1400 hectares. benn famille nee nañ ñoo ko moom. loolu fan la. nga xam ni ay li ko bokk ci ay villages. presque mat na 17 villages. loolu ci fan la ci Sénégal 1400 hectares. ci la soriwut. fan wax ko jotagut bu ko wax jot bu ko wax wax ko. waaw non fii nag mooy petit déj fii nag looy wax moom day leer moom. xam nga lii loolu yëkkatiwuma tey. waaw mais dañ koy wax parce que petit déj la parce que petit déj. day leer 1400 hectares. waaw yoo xam ne benn famille benn kër nee na moo Ah, mais moom fi ma da ngay leeral waaw waaw moo tax man la man loolu indiwuma fi tey maanaam damay confirmer que rek gis nga mbuur mbuur mbuur habitant yooyu ñi dëkk foofu dañu jokk noonu tamit non waaw euh, loolu loolu ñu ngi mais dama ne ko dama ne ah, hmm. mbuur kaat ni mu feeñe mhm. fi senegal yépp ay feeñ parce que nit mënut a juddoo ci ab dëkk baayam juddoo fa maamam juddoo fa baayam amoon ay tool di ko bay mhm. baayam dee maamam dee baayam yor tool ya mu ànd ak doomam di fa bay di sàmm di bay di dunde benn suur rek ñu indi benn kayit boo xamante ni bii du kayit bu kenn xam mm. ni yow kat sa baay fii la dëkk fii la juddoo mais tool yee mu yoroon mm-hmm. moom moomu ko sama maama ko moomoon ci kayit bi la ko def mm-hmm. te yow yëgoo tinoo mille quatre cent hectares mm. mais xam moo tax ma ne la loolu dama fay indiwut maanaam dama lay confirmer ah, rek di nga dégg di nga dégg leneen lu bokkul ak mbuurkat loolu laa lay ëllëg yeneen yu génnaat daal voilà di nga gisaat di gàtt leneen loo xam ni bokkul ak mbuurkat bii nga xam ne fi mu nekk nii. Mhm. maanaam am na ñoo xam ne fañ dëkk buur lañ fa def seen bopp di bummi. yaa ngi may dégg de. mooy expliquer litige foncier mooy am fii rek problématique bi rek euh, yaay def lu la neex yaay wax lu la neex ku àndul ak yow nga jaay ko doole da tëdd fi nga tëdd di envoyer message naan tëjal diw jàppal diw ku sëqat nga porté ko plainte mais loolu nag moo fi jeexal. jaay doole boobu moom xam nga boobu nag la ñuy séntu ci nguur gi pour mu jeexal ko. waaw li waaw moom la ñuy séntu ci nguur gi mais moo fi jeex moom xaw ma ndax jeex na fi. non dana na non xam nga tax. waaw xam nga lu tax man xamuma ko. waaw wóoruma man tant que mbir mi lijjanti wuñ ko. man du ma man man nag li ma jàpp mooy dana jeex. man waaw ma d'accord am naa ci confiance en 200 pour cent. xoolal xam xam nga man jaay doole moom ak jël alal jàmbur ak. jàpp not nit ñi moom. ma xam la laa jeex waaw baadoole di sonn baadoole waaw di eh, parce que gis nañ agriculture bi rek yi ñu ci génneet yooyu yëpp di jàppale baykat yi loolu ça rassure ci côté ñi nga xamante ne ñoo nekk ci zone rurale yi ak ñi nga xamante ne dañoo yàgg sonn commencé guñ ko mais la décision qui a été prise mm-hmm. ci agriculture bi de jël armée pour mu séddale affaire bi ma su ko c'est une excellente loolu loolu loolu loolu loolu loolu moo wóor mm-hmm. comme ça opérateur opérateur opérateur parce que xam naa fi ay village yoo xam ne nag man village mm-hmm. indi pour village ba moo koy jël. waaye da ngay waxee te doo wax ay tur sax yow. waaw mais waxi tur moo jotagut waxi tur jotagut su waxi tur. fii Walfadjri la fii Walfadjri la yeggaleel. ah, ah. comme comme loo wax tur kay. waaw yeggaleel man 1400 yooyu bëggoon naa xam yan famille la ak. man nga ko xam parce que man loolu tax mais mais li wóor mooy. li wóor mooy gis nga. man je préfère parce que man sama yaakaar dafa yàgg di tas. mais am toujours lu ma metti. te du ma ko mën a faj ulul à part di ko ne di ko wax parce que lépp politiques qui se sont succédé ici nee naa leen régime socialiste yi ñoom ñoom moom Sacré Cœur bokkul extension ñoo ko doon daggati di ko maye régime Ablaye Wade bi cité kër góor gi ñoo ko tas yow Fatou yow xalaat nga naan da ngay am kër cité kër góor nga def ne c'est normal yow ana lu tax yow waroo am cité kër góor gi kër. zone de captage zone euh, euh, ki euh, mètre carré bi mètre carré bi un million un million un million de francs parce que ñoo koy def exprès pour yéegal ko pour ñeneen du ñu mën a bokk entre ñoom ci biir boo demee cité kër góor gi magistrat mm. impôt et domaine homme d'affaires fooy jëndee këru 200 mètres carrés 1 million le mètre carré foo koy fayee ban banque moo lay lebal xaalis ban assurance nga am yow ak sa salaire pour def loolu pourtant ñoom ñëpp biñ koy daggati ñoom ñoo ko séddoo ci seen biir muy régime Abdoulaye Wade bi régime Macky Sall ñëw ana fu ñu mujje xool leen. aéroport. aéroport bi ay euh, euh, une partie de Liberté 6 extension Sacré-Cœur bi mais vous euh, Sacré-Cœur bu bees bi. Mm-hmm. xaw ma lan extension je sais plus où là ci seen VDN bi noonu. Mm-hmm. ay ñoom rakku rakku rakku rakku rakku rakku bi ci ginnaaw Elton bi da gis euh, am na fa pratiquement 4000 mètres carrés yoo xam ne daf ko bu nekkul woon rakku rakku rakku rakku Marième Faye Sall dina ko am. Mm-hmm. loolu loolu ngeen defee kenn du ko wax ñu ne salaamaaleykum maaleykum salaam mu am ay homme d'affaires yoo xam ay ay homme yoo xam ne ñu ngi léegi nii ci nguur gi nii nii ñoom yor ay 43000 mètres carrés bi euh, euh, Bassirou Diomaye Faye loolu la yor. 4 hectares et demi la yor pratiquement 43 000 mètres carrés boo ko defee 150 mètres carrés dëgg rek. ci fan ci fan ah, mais Sandiara. baykat la tool may wax. tool yi bàyyam non dama ne baykat la nag. non du toolu bàyyam waaw baykat waaw mais ñii nga xamante ne baykat la. Euh, non c'est différent waaye njagañaaw benn la bi ba tam li may wax xam naa ko tamit. baykat non laa la wax Sandiara. d'ailleurs dama bëgg am lu leer que Sandiara Serigne Gueye Diop un monsieur que nañu wax téléfon mooy meeru Sandiara Serigne Gueye jóob nekkul woon ci opposition bi waa kër mag Sall la doon àndal Serigne Gueye jóob moo nekk tey ji nii ministre lan anamu lan la. de l'urbanisme. ministre de l'urbanisme xam nga yooyu je suis non ah, urbanisme euh, Fofana boobu la. Ah, bu ki doon liggéey ci Atepa xam naa Atepa moo ko lijjanti. déet déglu ma rek déglu ma déglu ma mu wax la employé Atepa la woon. waaw après urbanisme mooy lan. waaw léegi bu dee employé Atepa rek Atepa moo ko lijjanti. dafa man non dama ne man li may wax sénégalais la bu am diplôme war koo yor dama ne man wóoruma waaw man damay wax rek man wóoruma ah, waaw mais bu la da ngay wax lu wóor non non bii nii wóoruma dama ne non parce que non j'ai juste fait le lien entre Balla Moussa Fofana ak Pierre Goudiaby Atepa parce que urbanisme mooy problème mu réew mi mooy foncier waaw ñi ngi ñi ngi coow ñi ngi coow ci corniche bi ñi ngi coow mais Atepa am na si am am na ci am na ci zone filao yi ah, cité Atepa bi anamu man loolu non waa déet Sidi Ataba bi ñëwaat ne Sidi Ataba dañ ko ko tuddee noonu rek gratuitement ak magistrat yi am nañu. ci ci ci ci filaawu yi séddoo nañ ko. moom nag architecte la woon. waaw mais oui architecte alors. mais da nga jël mais cela veut rien dire. non architecte parfois mun nga def leen ah. mu am lotissement waa ji ne la yow déposé ma defal ma plan mais en contrepartie dama lay fayee suuf loolu am na fi ah. waaw am na fi. <laughs> dama lay fayee suuf. après yow nga jël affaire bi jaay. yooyu yëpp am na fi. mais dama ne promoteur yi parfois noonu la ñuy defee ak ak ay maires yi. damay tabax lii mais encore s'il vous plaît waaw. zone filao yi laa wax. zone filao yi. ñan ñoo fa nekk ñan ñoo ko séddoo. mais am na am na am na ay magistrats yu ci bokk. mais waa Guédiawaye duñ ci am. wala dagget la quelques membres du conseil municipal. mais ñi fa dëkk nga xam ne seen bàyyi fa la dëkkoon ñu màgg fa am liggéey waaye liggéey bi xëy na dëkk bee metti ñu ne leen yéen terrain yi ñii ñoo koy jël daggati ko séddoo ko boo leen ci buggee ñoom ci yi ñu jël dina leen ko jaay te bu ñu leen koy jaay bu dee ñëw 150 mètres carrés la mu ne leen ko jaay ay 10 15 millions yow boo boo ko mënul yow dëkk géejawaay léegi da ngay ubbi sa toog sa kër bàyyi ak ak say jabar ak say doom moo tax ñuy dankaloo noonu góor gi jóge na fi loolu moom dëgg la moom góor gi jóge na fi amuñu choix parce que mënuñu dëkk à côté alors suuf yooyu ñu dagg noonu dañ si waroon jox possibilité pour ñoom ñu mën ci am benn 500000 mètres benn 500000 francs ñu ne leen am leen benn 150 mètres carrés ndax nga ne jóg na pour. amul mais duñ ko dindi pour jub jubal ko def xam tax. parce que si dana dana jubal jubal léegi nañ ma nangul suufu suufu magistrat yi. nañ ma nangul suufu impôt et domaine ñoom am nañ fa plus de 3 da ngaa def ma rek sëñ bi non xam nga man bu dee li may wax nii man je préfère nga ne ma bu ma coupé nii dana mën a ne man Aliou Sow li ngay wax du dëgg comme man ni ma magistrat yi laa wax am nañ ci 30 000 mètres carrés waa léegi ñoom ñoo koy séddoo ci seen biir comme ni ñu séddoowee woon une partie de cité kër góor gi ba ñoom Ousmane Sonko am fa ba ñoom Bassirou Diomaye Faye ni ñu séddoowee côté Mermoz ba ñoom ñu am te Bassirou Diomaye li mu am impôt yi moo ko jox séddoo yi ñu. suñ part yi ñu amoon justement moo tax parce que énuméré nga. benn waaw léegi bu ne li may wax du dëgg wax leen ma ko. train de vie de l'État du Sénégal. Mhm. ak déclaration. xam nga train de vie de l'État mooy li ma wax rek man dama ne train de vie de l'État man bëggoon naa par exemple tey jii nii qu'on me une communication parce que mënu ma ko supporter parce que ci réew mi laa bokk nag ci réew mi laa bokk man mënu ma supporter tey jii nii Méridien président Bassirou Diomaye Faye kon ne fa dëkk. këram ok pour des raisons de sécurité mënu fa dëkk waaye bu choisir dem dëkki feneen te palais bi nekk fi non li ñuy programme mooy lan mooy palais yi karo karo yee fa bari rek ah. non dama ne palais yi karo yee fa bari il faut ñu fulli karo yi xool lañ fa lan lañ fa defoon comme euh, liggéey non déglu ma rek président Bassirou Diomaye Faye africain la du ma nekk ci pale boo xam ne ka fa nekkoon bëgg ko gis def na pexe bu ne pour sànq ko yàlla dogalu ko mu génn ca palais ba muy meebe ay bagaasam di fa dugge noonu. d'accord bala faa dugg dañ koy lijjanti ba mu leer. d'accord ñu xool ñu xool ko ba mu leer. yaa ngi moom du ko def. non d'accord naa man d'accord naa yaa ngi dégg de bu dee soxla woo ko ñun dañ koo soxla. bàyyi loolu da nga wax ñaari yoon wax nga ko bee ma bàyyi mu sedd. non déglu ma ne sama xarit nga mais dama la wax benn affaire. dama ni fii Afrique la dafa am nu ñuy doxee. moom baykat la doomi baykat yaa ngi dégg de xam na li muy def ami mbokkam gis nga mbëtt bu dofeet bar mbokk ma bu séenee luy rayee day daw yaa ngi may dégg de voilà dañ koy xool duñ xëy xëy dem pale de dañ koy xool maamam yu xool ko ndijaayam yu xool ko ñu xool ko ba mu leer ñu doog faa dem d'accord kon na ko xool ñetti mais un naa man ah, bokkuma ci réew man man man xëy na dama toog fii di wax waaw mais yaa ma ko lebaloon nag non d'accord naa mais xool waaw na xool ñetti weer. na xool na xool juróom-benni weer. na bukki génn de. waaw bay ma yegg waaw na xool ñetti weer na xool juróom-benni weer na xool at. waaye bu fekkee dafa choisir ne day xool. bu ko neexee sax Macky Sall da ko fa woon ko neexee mu def loolu. waaye li ma li ma jaaxal mooy. waaw bu fa dëkkee te teewul mu doxal réew mi tamit. wala noo ko gisee dëkk fan. mu dëkk foofu ba pare. teewul mu dëkk fan léegi fu mu dëkk waaw ba pare di doxal doxal normalement lu Sénégalais war a xaar non dama ne xam nga am na solo. mu ngi doxal xool fu mu dëkkat fu mu dëkkul est-ce que duñu xool ci nu muy nu muy gérer réew mi. waaw nu ñuy bu ñu ci bu dee sujet la ñu waxtaan ci. Hmm. waaye man dama ne da dañu nekk di train de vie de l'État nga ma laaj. yow yaa laaj train de vie de l'État train de vie de l'État mooy yaxanal alalu réew mi man ma bëggoon ñu def une communication sur le King Fahd Palace dëkkuwaay bi mu président dëkk foofu ak ay collaborateurs am chaque jour combien ça coûte le pays. ñaata lay coûter Sénégal. am na espace yoo xam ne dañ leen ko réserver gratuitement. dama ne dama ne dama ne mais na ko. Théo mu ngi ko doon ah, euh, wax man lan est-ce que Théo li mu wax dégg nga ko waaye li ma tontu Théo déggoo ko. waaw lan laa tontu Théo dama ko ne laa wax. Mm. loolu méridien président aménagé wuñ ko pour un président de la république boo xam ne dafay dëkk di dem di liggéey chaque jour. <coughs> xam nga tax ñu aménagé ko pour un président qui doit se reposer wala mm. collègue am bu ñëw wala wala kolo euh, kii yam

nekk président de la république. nekk fee lu ma tur weer nga ne waru faa nekk. mais parce que mais a tax waru faa nekk. man un mois.

dama dara naqariwu ma mais non non parce que boo sinon di nga dégg parce que moom li mu wax rek nga dégg yow mais loolu sama sœur bi wax na ko non dama la ne suite dama ne suite présidentielle boobu pour président bi la waaw bu bëggee dal mais dafa yàggut xam nga benn weer waaw waaw déet bu ma coupé da ma laaj waaw dama ne bii bi bokkul bi président loolu président bu fa naree dëkk un président de la république du man la wala yow waaw bu fa naree dëkk dañuy aménager mbir mi te du suite bi kese lay dëkk dafa am ay collaborateurs yoo xam ne dañuy nekk ak moom am ay services de sécurité yuy nekk ak moom en ñëpp dafa am fu leen dugal te ay place la te loolu wu wuñ ko biir méridien parce que méridien du pour loolu waaye boo demee ba def choix boobu ok di occuper ay ay ay ay day mel ni comme Karim Wade ni mu daan def rek bu soxlawee Air Sénégal c'est terrible ah fii changé wul de déglu ma déglu ma rek non bana déedéet astaghfirullah bu ma coupé non mais yow mosoo gis président Ablaye Wade bàyyi leen ma wax leen dama ne day mel ni Karim Wade laa wax Karim Wade sëñ bu ma coupé coupé wu ma la mais léegi boo waxee loo xam ne tegul tamit ñu wax la ko mais dama ne mosoo gis benn président dem fekk ku jël alali jàmbur suufu Sénégal séddoo ko mu ne dama koy delloo seen borom non waxuma loolu de. gisoo Abdou Diouf def ko gisoo Abdoulaye Wade def ko gisoo Macky Sall. bi un kon nag yow boo taxawee ni kii moo doon def lii sensé wut changement am na de. mais dëkk gi xeeñ ci réew mi mosu fee am. ma droit

c'est normal li ngay défendre. mais man dama ne. président te li ma wax nii nañ dindi li nañ ko dindi teg ci leneen. bu ñu dindi rek di wax nii. waaw président de la république. yow daal hôtel bi moo la xamul tax xamul tax mu dérange. waaw parce que moom. waaw da kay fay. d'accord day fay loolu yëpp ak ñi fa dëkk ak ñi ko. ñi ma dëkk la kii nee na du fay.

ma jël ma jël benn deux cent. Ah, lii gars récréation bi jeex na de. Ah, récréation bi jeex na. voilà problème bi changement na ci. ma ne wal fajiri daal nañ ko defar. xam nga xam nga ñaar loolooy wax ji faju ñaari fan laa danañu ñëwaat ci euh, xool ñaari fanu kii laa la wax pour yeggali pour terminer rek ñaari fanu ñaari fanu ñaari fanu Bassirou Diomaye Faye laa wax ak ak délégation ak collaborateur mi ca biir méridien dem nañ ngeen xool nee nañ du fay dara voilà merci beaucoup ah, ñoo ko wax de man wax dañuy ñëw léegi dem na ci rubrique Thank you.